ñaari xaaj ngeen am na koo xam ne ñaan lu kese lay def na bokk na gaaw bokki ca ña nga xam ne dañuy jàng bu leneen ci ñaan ñaan baax na waaye xam gi Mariama def ba ne man léegoo-léeg may faj soxla fexeel yéen ñëpp yéeg leen ci jéem a xam Cheikh Bara yàlla def ko may ci xam-xam bi façon njàngale hin woo xam ne kenn ku ne mën nga koo xam soo jàngee arab mën nga soo jàngee tubaab mën nga boo jàngut wenn làkk mën na la ko expliquer ba nga xam ko man léegoo léeg damay dal ci laayu famille di ko seetaan li may wax du ay léeb lu ma xam la bul wax ne man euh, jànguma arab wala jànguma diina du ma mën a xam li Cheikh Bara di wax déedéet ñëpp ko mën a xam del wàccee del enregistré del def ci ay dictaphone di ko denc di ko dégluwaat da nga koy xam te itamit xam-xam aleykum asalaam bismillah jàng jàng ba xam ja jàng ba xam du du du du du nekk ci groupe bi rek di dégloo ndeysaan dafa am benn égyptien bu baax ñaari doomam kenn ki mel ni Mouhamad mii suñ doom ji maa ngi koy ndokkel yal na yàlla may ko xam-xam bu bëree bëri waxoon naa ko ba mu taree alquran ca dajee ba ci kanam sëriñam Cheikh Balla Top ne ko mag ñi daan nañ wax ne kaangam kese doyut kaangam kese mooy ku mokkal alxuraan te jàngoo benn téere doyut na ko baayam ba mu dem jàngi alxuraan buntab ubbi xam-xam la waaye du xam-xam du xam-xam moom kenn la mooy ne dangaa xam li muy firi xam li ci ne te loolu jàngi leneen a koy maye oustaz boobu égyptien boobu daf ñu daan wax ju am solo bi ñuy jàng mu ne leen mu ne ñu est-ce que bëgg ngeen raw seeni bokk ñu ne waaw mu ne bëgg ngeen kuñ leen tëkkaleen ngeen ngeen ne duhuma moroomam maanaam nit bu buggee taxaw ne diw duhuma moromam du ma du ma sa moroom moom deret du ko maye yax bu rëy du ko maye alal du ko maye xam rek koy maye xam-xam Cheikh boo bëggee wax sa mbokk yi ne ma du seen morom yaa ngi koy manee ci xam-xam xam-xam rek nga mën a waxee nit ñu ne du ma sa morom du ma sa morom ju la nit wax te duur xam-xam soo góorgóorloo bu subaa yow it nga ne ko duuma sa morom dafa am dara wuutal rek boo xamee boo xamee rek du moromam dafay tukki tukki yu bëri takkal sab saag rek te dogu ne da nga tukki boo tukki rek doo doo moromam xam rek xam-xam rek la nit mën a am ne diw duuma sa morom leneen lu mën a do rek soo waxee nit ki ne ko duuma sa morom ëllëg nit mën na ko am ku dul yow yéen ñi ne ci groupe bi tey déglu te jàngu leen da leen ci boole jàng loolu maa leen ko ñaan professeur arabe boobu daf ñoo égyptien bu baax la daf ñoo waxoon wax ju am solo mu ne ñu yaa taalibi ilma nabiyi muhammadin maa antum wa siwaakumu bi sawaa'in wax ju am solo sama doom Omar ñang déglu nga ma yaa taalibi ilma nabiyi muhammadin maa antum wa siwaakumu bi sawaa'in xam nga wéykat la moo tax ma koy wax lii su may wax ben xasida wéy dama koy dolu xale bu xale bu ubbeeku la ci woy macha allah waaye nag laa xar wa ndax Cheikh Bukaana ko jàngal euh, égyptien bi daf ñoo wax nañu e yow mii sàkku xam-xam te xam-xam bi jëm ci xam-xam ak yónnent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag foofu nag am na équation am na am na waxtaan dana am ku ne bi tey gaa ñi li ñuy wax nii ak li leen booleeg Cheikh Baara xam-xam ab yónnent yàlla muhammad la ma ne waaw waaw xam-xam ab yónnent yàlla muhammad la kay xam-xam ab yónnent muhammad la kay waaw waaw baara waxagul leen lu génn alquran te alquran wax ne maa farat naa fil kitaabi min shay téere bii di kaamil bii baxuñ ci dara lu nit war a xam mu ngi ci xam mu ci ci biir xam googu ci la baara xam lu xóot loo xam ne moom la leen di jàngal ma ne xam-xam boobu xam-xam yonent bi la professeur bi nag nañu xam-xam ab yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa yow mi koy jéem a xam soo ko xamee ba xam ca dara na nga xam ne yow yemoo xak ku ko xamut maanaam duma sa morom ji foofu la mën a amee yow mi xam dara ci xam-xam yonent yàlla muhammad soo tasee ku ko xamut nee ko duma sa morom waaye waxee ko ko nag pour mu dem xami waaye bul ko ko waxi maa la gën maa gën yombut ndax ki gën yàlla rek ko ko xam ah, maa ngi leen di sant kon di leen ñaan pour ñun ñoom ñu jéem a xam Cheikh Boucar dañoo waxoon ne bu ñëwee moom na waxtaan ci alquran Cheikh yoon yónni léegi daal ci man ne man na nga laal dara ci alquran ndax Cheikh Boucar moo ko war na waxtaane te yow yaa uutu sa toogaay bi mooy toogaayam man damaa yaakaar ne sax moom mi xam na lu yoo xam moom moom it li ma doon wax ci astronomie bi affaire la de affaire yi xam-xam bi diwi dara la parce que lii la ma Boucar wax tey huit heures ci suba billahi wallahi tallahi ma ma wax tey ci huit ne ma xaama loo préparé wax yow waaye na nga wax importance yi jàng importance su njàng rawatina alquran baara yu ne léegi ci man ne ma bul dagg léegi conférence bi te laaloo dara ci li Cheikh Boucar waroon a wax mooy wax dara ci alquran xam-xam maanaam njëriñal importance xam-xam moo tax ma commencé dugg di leen wax ne leen bu leen ci seetal ma bul yem ci listixaaral ma bul yem ci fajal ma sama doom ji bul wàññi ci damaa bëgg këyit bul yem ci examen bi bul yem ci ko amul doom ko amul jëkkër ki damaa jàng ba pare ma liggéey yooyu yëpp baax na mais jéem a la xam jéem a la xam tukki fi leneen nag fi jéem a la xam jéem a la xam ndax am na loo xam ne bu la dalee digg guddi bala ngay jot Cheikh Baara te fekkoo ko ci live bi xam rek moo la ci mën a génnee jéem leen ay xam Cheikh Baara. sa xarit Cheikh Boucar bu ñëwoon dana waxtaan ci alquran moo ma ko dàq fépp man su ñëwoon xam nga lan lay def li Mourtada daa def nii lay def waroon naa teew tey ngeen ay jommi damay jël micro bi rek présenté ko jébbal ko kàddu gi déglu ko ndax man ni ngeen ay jëlee ni ni ni ma ni may waxee nii am ñu cay déggee moom suy wax maa leen maay gën a dégg man suba dégg gi mooy gën a xóot seen dégg gi yem ci moom. muy borom xam-xam bu mag di allaama koo xam ne farisun min fursaanil manabiri di kéemtaan su ñëwoon xam nga ne bi tey daf koy présenté rek bàyyi ko mu waxtaan waaye maa ngi leen di wax lii te lii ma wax ci waxam la du nag sax moo ma wax ne waxal lii waaye daf na ma rek waxal ci importance ma ma ma foraatu dara bëgg ko yokk ci li ma doon wax man li ma doon wax yëpp maa ngi ko teg ci àndoo ngir yàlla ak bëggante ngir yàlla ñun li ñu yàlla digal mooy li ngeen def yéen yéen a ne ci li yàlla digle yonent bi naan al muminu lil mumini kal bunyaani yashuddu baaduhu baadan jullit ak moroomam jullitam daay mel ni miir boo romb mu taxaw mënoo wax ne birig bi moo tax miir bi taxaw birig ba ca suuf taxut mu taxaw birig biñ fondement bu xeebee bi ci kaw miir bi daanu birig bi birig bi mujj ci kaw miir bi su xeebee birig biñ fondement moom miir bi daanu boo rombee miir man ngay wax ne birig bii moo tax miir bi am yonent bi ne nañ mel ni ay birig yuñ miire ba pare birig birig buñ miire ba pare benn foo mën a wax moromam yaa ma gën ñoom ñëpp dañuy yem bu ñu yemul sax mu daanu bu ingénieur bi ñëwee daa wax ne lii dafa dëng du am un an te yàquwut nañu yemee te àndoo te bennoo te kole loolu moo ñu war jullit ñi dañoo war a kole dañoo war a nekk benn ubbi ngeen ko el yow ak sa gaay yow ak ñoom soxna Mariam macha allahu yal na yàlla wéyal lii te gën ko jàngal dëgg dëgg dëgg ñun mënuñoo wax la mooy kontaan nañ ànd ak suñu waa ji te àndu nag moom la muy ngir yàlla àndu nag moom la muy ngir yàlla man de li ma wax ñu bari déglu naa ko waaye yépp ma neex dégg naa sa waay mu ne soxna Mariama mu ne baara laajut kenn dërëm waxut kenn fajal ma sama soxla waxut soxlaay kenn moom daal bu xëyee mu ngi ci suñ soxla yi ñun nag lu ñu def baax na loolu mooy ànd ngir yàlla ànd ngir yàlla loolu la dangay bàyyee nit ki li mu am tey def li nga man soo defee li nga am li nga man te bàyyi nit kilomam bu yàggee moo xam ne moom it am na lu ko waral te loolu la Cheikh Bara nekkee ak yéen loolu la ñu yàlla digal nañ suudeeku comme birig comme miir buñ taxawal benn birig man tax xeet moromam ñu yem buñ yemee lay yàggaloo tabax ba dana yàggaloo ànd gii nga xam ne moom lañ ànd euh, ku bokk baara gërëm na leen ku ko jege gërëm na leen soxnaam yi gërëm nañ leen bu wax na ma loo xam ne sax bala may dem ci deuxième partie waxtaan bi moom laa leen bëgg a wax xam nga lu ma wax démb daf maa oolu fii démb ci guddi Cheikh Maola ne ni yow ak Cheikh Mamoun bi ngeen ñibbee Cheikh Baara oolu na ma fii démb ci guddi ma ñëw fii am na ñu ma gis xam nga lu ma wax daf ne ma maa ngi lay gëñal ci yàlla ne groupe bi bañ ko sosee ak tey su fekkee une heure de temps laay am man pour ñaanal sama bopp yàlla damay jël quarante minutes yi ñaanal leen ko ñoom ñaanal sama bopp vingt minutes billaahi moom ma ko wax nee na ma bu ma amee une heure de temps man boo xam ne am naa ko jot pour jublu ci sama borom téye sama kurus ñaanal yàlla quarante minutes yi dama koy def seen soxla yi ñoom jël vingt minutes yi jox ñaanal ko sama bopp ak sama njaboot ak samay bokk loolu mooy ànd ngir yàlla loolu mooy ànd gu baax loolu wute naa ki nga xam ne yàkkamte ne nga yónnee ko dara ba mu lekk ko bloqué la dooto ko mën a jot du whatsapp du téléphone wala mu lay jox gone yi naan ñu naan la bi dafa jàpp mënoo jot sëriñ bi sëriñ bi kenn mënatu koo jot looloo fi bëri xam ngeen ma xam yéen xam ngeen man xam naa yéen a gën a comprendre xam ngeen xam naa loolu dalut ko moom ne ne yéen lay ñaanal door a ñaanal boppam te yéen 40 minutes ngeen am ci une heure de temps moom ma xam ci 20 minutes kooku wa jara àndal kooku nit ku baax la lii moom ma ko wax démb ci guddi ci kàddu yi ngërëm yi nga xam ne def ci kii parce que dama koo bëgg di borosaale ci biir waxtaan wi mbokk yi awalu ayatin nazala bi hal waxyu tadulu ala alqiraati iqra bismi rabbika aaya bi njëkk a wàcc ci alquran ñu xam la digle ñu jàng la digle njàng duñ ko caaxaanee njàng nag dana ñëw ci kanam ngeen xam ne ni dana jàng tiim livre mais ni dana jàng ñàkk tiim livre nit dana jàng livre a koy jàngal nit dana jàng te doo am benn livre moom du gis kayit xam naa nag loolu ma bëgg a wax moom la yàlla dëggal tey ba nit ñi mën a jàngale ci internet bi Instagram bi YouTube bi mën a jàngale ba ci TikTok bi aaye bi njëkk a wàcc ci alquran mooy iqra jàngal kon importance yi jàng dafa teew ndax yàlla bi mu waxee yonent bi ne ko maa ngi laay ci alquran ci yow li yonent njëkk a dégg mu bàyyee ko ci borom ma mooy jàngal kon bu jàng amutoon njëriñ leneen laay wax bu amoon lu ëpp doole njàng loolu la yàlla di wax yàlla kat wax nañu ne nit ak jinne binduma leen ngir ak foontu xaw ma sax luy nu doog foo man bay foo man yàlla man du ma fo gannaaw du fo nag lim njëkk wax yonent bi mooy dëgg moo nañ jàng bu leen foxee jàng nañ jàng nañ jàngaloo suñ doom yi te baara de exemple la de du mu leen di jàngal di leen xamal kum leen présenté tey taawam bi Muhammad kaar kaar yan na yàlla guddal fanam lim ko li ko yàlla may may ko ay rakam may ko sax ñi juddoogut dañ war a juddu ci këram mooy alxuraan ju rafet gii xale bi tari jëlee ko ci sëriñam Balla lool lool loolu loolu wax la de joxoñ la de mu ngi leen di joxoñ ne leen nañ xam xam xam yëpp ndax moom bii bi ko xamat dafa njëkkoon ci bii nañ fexe mbooleem xam-xam ñu xam ko alqiraatu fi bu'dayha bu'dul kitaabil mastuur wal kawnil mamduur al njàng njàng ñaari faset la ñaari yoon laxam benn bi nga tiim téere buñ bind da ko jàng beneen bi nga tiim kawnu bi mooy nature bi di ko jàng ñaari njàngin moo am kitaabul mastuur mooy téere buñ bind livre nga jàng livre loolu njàng la nga jàng jaww ji njàng la nga jàng univers bi njàng la nga jàng kawndu bi njàng la xanaa kay man kon dafa mel ne damaa comprendre a ah, man naa ngi wax ne nga jàng univers bi nga jàng kawndu bi nga jàng nature bi loolu njàng la dul yéen loolu moo leen booleeg Cheikh Baara ah yéen univers bi la leen di jàngal ak bi njàng ñaar laaj nga jàng téere boo xam ne mastuur la dañ koo bind ak kawndu bi nga xam ne man manzuur la loolu jàngkat arab yi ñoo ko xam bii mastuur la bii manzuur la ñaar yooyu moo fi ne gis nga suñ sëriñ sax bu baax Cheikh Maa walee ni dafa mas a wax ju rëy euh, te waxi sufiyanke yi la sax Dramé dafa wax benn bes rek toog rek ak taalibe yi ñu wër ko mu ne leen maa ngi jàngal téere yi baax na de maa ngi leen ay jàngal alquran baax na de maa ngi leen ay jàngal hadis yeeg fiq yi baax na de waaye taxawal leen ma wax leen dara ñu ne ko mooy lan mu ne kaay leen ñu jàng te ëmmal sutural kainaati fa innaha min al malai al ala ilayka la laqad qutta fiha law taamalta xattaha ala kulli shay'in maa xalla llaaha baatilu mu ne kaay leen ma jàngal leen beneen téere ñu ne mooy ban mu ne mooy mbindee fi yàlla yi mbindee fi yàlla asamaan si ci la bokk biddiw yi ci la bokk nit ñi ci lañ bokk jinne yi ci lañ bokk garab yi ci lañ bokk dama ma sant ak benn paa ñuy dox Kawlax te gis ngeen billaay xam ngeen li ngeen xam seex Cheikh Baara baax na waaye yëf yi des na de baaraa ngi dese ngele yoo xam ne wax waxagul leen ko man nag maay sàcc da leen wax ndax yéena ma wax loo xam naa da ngeen ma war a gërëm ndax maa ngi sàcc rek da leen wax ah el kontaanoo maa ngi am yu maay sàcc rek di ko foroxal di ko dugalaale dama mas a ànd ak suma benn sëriñ Oustaz Ndaw di dox ci kaw la mu ne ma bi ma naa mu ne ma xam nga boo jëlee garab gi garab yii nii maanaam mu ne ma boole koog mbaam mi ma ne ko boole mbaam mu ma da ngay jël garab gi taxaw boole koog mbaam mi yore ñeenti tànk ak tali bi da nga mën a jàng baat bi ma ne ko loolu baat la mu ne ma baat la xamoo ko ma ne ko déedéet mu ne ma dese nga demal jàngi dégg li ma wax la déggu leen ko jigéen ñi dégguñ ma de mu ne boo jëlee garab yi garab yi ngay romb nii buwaay yi garab yi nii garab yi taxaw nii mu ne ma boo leen jëlee boole koog mbaam xam nga mbaam ñeenti tànk lay am mu ne ma nga boole koog tali bi tali bi may dox man maa ngi moom ñooy àndi ni dox guddi mu ne ma lool benn benn moo la da ñetti leetar la leet garab gi leetar la mbaam mi lettre la tali bi lettre la boo leen boolee xam benn moo moo bi xam nga nu mu tuddam fekk mel ne mbaam ma ngay jàll mu ne ma jëlal ñett yi gaaw bala mbaam ngay jàll xam nga moo ma ne ko déedéet mu ne ma demal jàngi jàngagoo ma ne ah kii dafa taseexoon nag waa ji wax ne seetantanal univers bi leetar buñ la bind la yàlla lim bind yëpp ay leetar la ji ngeen ni ngeen découvrir ba taseeg Cheikh Bara mu leen ay découvriral si ñooyu dafa des yeneen lettre yoo xam ne waxagul leen ko na ngeen continuer moom billaahi da ngeen romb sax baatam man sëriñ laa soxna Mariam da nga dem ba yëg ne yow wëlliyu nga wëlliyu da nga dem ba dootoo ñaanal kenn soxla bu tokk sa nopp bi yàlla faj ko soo soo continuer ak Cheikh soxla bu topp sa nopp bi rek yàlla daf koy faj soo xalaatee dara loolu dafay teew dafay teew loolu xam nga am na ci signe yi am na ci signe yi teewal mbir yi waaye bu ca kanamee dafay gën a neex dafay gën a leer sëriñ bi mu ne seetantalal li yàlla bind bindee fi yàlla yi fa innaha min al mala'il ala ilayka rasailu yàllaa ko bind yabal ko pour mu nekk ay leetar lépp loo gis rek leetar la bu yàlla bindee yaa ko mën a gut a liir yàlla du fo du caaxaan bindu dara ci erreur bam la waxee ne wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lépp lu ma bind rek dama ko def pair defu ma defuma defu ma impair tubaab yi fuñ mu jëg ñun ci xam-xam dem nañ ba garab gi nga xam ne mënta meññ dañ koy greffier mu meññ loolu du peer garab gi mënta meññ dañ koy greffier buñ ko greffier mu meññi te yàlla na ne lépp peer laa ko bind amul impair góor ak jigéen la lépp da jël garab ji ko mu am trois ans du am benn meññat nga ne garab gi dafa góore dafa góore nga dem jël jigéen boole koog moom mooy nga greffier ko boo ko greffier rek dal di am dal di am garab aaye bi njëkk a wàcc ci alquran mooy jàngal kon jàng mun te ñàkk importance boobu la Cheikh Boucar waxoon ne nañ ko wax njàng nag ñaar la jàng téere buñ bind bi ak téere bi ñuy xool mooy bi ñuy seetantal boobu moo laa yóbbu ci internet boobu téere la moom itam boobu beneen livre la livre la mooy nga découvrir yàlla mu bind lu tax mu bind ko ak nu mu ko bindee ak yan jëriñ moo ci ne ak yan xam-xam ñoo ci ne loolu bokkut ak kitaabul mastuur kitaabul mastuur dafa am kitaabul mansuur am ñu ngi gërëm mbooloo mi yëpp di sant yàlla di leen wax ne leen borom xam-xam yi ñoom la yàlla yëkkati ci kaw ñi xamul ñetti seede rek la yàlla def amul quatrième shahida allahu annahu laa ilaha illa hu wal malaikatu wa ulil ilmi qaiman bil qisti yàlla ne na bi ma waxee ne maa fi ne man yàlla laa beneen xamut bu man malaaka yi laa ci teg-teg ci borom xam-xam yi te yéen groupe bi xam-xam boo leen booleeg Cheikh Baara kon tegu ngeen ci yoon wi yéen ci yoon wi Cheikh Baara yal na la yokk sa fan yal na la mbooloo mi la teewal yal nañ la yàgg teewal ñun dañ laay fay si rek waaye kenn ku ne ci ñun teewal nga ko Oustaz Dramé moo Mouhamed Lamine Dramé bi ma ko jotee fan yële mu nekk ku taal ne ci mbay mi ma ne ko seetaan naa la yaa ci machine yeeg mbay mi mu ne ma lu ci mën a doobu samdee ma dagg ko ñëw Dakar ma ne ko lu tax mu ne ma baarakat dañ koy fay waaye lebaluñ ko yàgg nañoo dikkal ñun ñi ñëpp buñ xewlee Cheikh Baara moo fa man ci poosam ci jëmmam ci teewam dégg nga ko kon ñun bu teew xewlee ñu ni tamit danañ ñëw maa ngi ak sama doom Cheikh Baye Diouf di sëriñ bu mag moom itamit ci li Cheikh Baara la ne di ñaankati yàlla boo xam ne du nelaw mukk di ñaanal jaam yàlla mu ngi nii ci gannaaw ànd man di wax ne li ma Baara santoon ëpp na lii li mu bëggoon ëpp na lii waxtu wee ko teree xam bu déwénee ñu taseexaat wasalaamualeykum wa rahmatullah principal la nekk wax dëgg yàlla euh, bëri na loo xamante ni dana ma koy taxawu ci nit ñoo xamante ni dañ may euh, sant loo xamante ni du sama domaine moom mu taxaw ci ndax nit laaj nañ ko xaalis bu bari pour opérer doomam bi ma ko ko waxee kooku opérer na ko ba pare te fayu ci dara te mën naa am moom bu ci taxawutoon xale bi mën na ñàkk bët moom mii moo ci taxaw ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni mënuma koo lim xëy na liggéeyam sax permettre ko muy nekk fii ba guddi waaye cofeel gu mu am ci ñun ak yëg-yëg bu mu am ci ñun wax dëgg yàlla moo tax lu ñu xewle du ko gàntu kon Seck ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax yàlla na yàlla dëgëral la yàlla taxawu la ak sa mag ju baax jooju nekk Amérique ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla ne yàlla na la yàlla yëkkati sàmm la xaar la ci métier mi nga nekk kontaan nañ trop macha allah jërëjëf Seck. man lu gàtt li may wax rek moo di ne ku am respect la ci nit doo fi ñëw ba am lu mu mel lu dul teg la ci. ci ci respect am respe bu baax a baax ci man loolu laa ko nawee saa mi fi ñëwee fii tis ki samay soxla ni may accueillir man mii daf may daf may jëmee jëli ko moo tax ne naa ko soxla mun munti am te ma am lu ma ci mën a def si naa ko def ngir sa jëmm ji waaw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 ورلي شهر برايا ورلي كم ورلي شهر برايا ورلي كم ورلي محمد لمين يا ورلي كم ورلي شهر برايا ورلي كم ورلي شهر برايا ورلي كم ورلي شهر برايا ورلي لي شبرا يا ورا لي كان ما ورا لي شبرا يا ورا لي كان ما ورا لي شبرا يا ورا لي كان ما ورا لي لا إله يلا طلقا بنت لا إله إلا إما لازم لا إله قائما بك عبادي لا إله وفيك لا إله يا جفي باي يا جفي باي

ne nañ yërëm na leen ame na leen amee bu baax loolu de xanaa jarut wax ndax lu ne fàng la loolu ñëpp teg nañ ci bët Cheikh Baara yi nag mënu leen a ñàkk a amee bu baax ndax yéen ay wër sa gëm te nit du delloo wër sa gëm te jigéen ñi yéen la ci yàlla tànn te leen takkat daf cee ñaan yàlla te li may wax xam naa ko wilaan xam na ci keneen xam na ko du takk jabar te ñaanu ci yàlla ku ñaan ba yàlla nangu nag lu la ñaan may nag kenn du ko am di ko foxee ku nit ñay ñaan loo jabar ju baax booy takk jabar da nga ñaan ñaan jabar ju baax yéen itamit nit ñu baax ngeen Cheikh Mamoun Cheikh Mahamad Lamine Dramé wàcc leen ngeen séq cadeau yi lay jox Cheikh Baara laa ilaha illallah laa ilaha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 la la la la Allah la la la ngi sant yàlla bu baax ci jataay bii ñu ngi sant yàlla bu baax ci gan yu màgg yi nga xamante ni ñoo fi teew jóge ko ci barab yu fasanti ko ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax waaye nag di jiital ci sant gi suñu mag yi toog ci suuf du yoon sax mu toog ci suuf ñu toog ci kaw mu nekk suñu mag nekk suñu sëriñ sama baay jàngal ko moom mu jàngal ma kon suma sëriñ la pare tuddee ma doom joo xamante ni war na am dix ans li ñu xamoon taalibe mooy tuddee sëriñ doom waaye moom sëriñ bi moo ma tuddee doom kon moom mënuñ lu dul sant ko ci taxawaay bi mu ñu taxawu tey lépp loo xamante ni nit ki mu ngi koy gis ci ñun ba di ñu sopp kii moo ñu fóot ba nit ñi gis ñi ci marché bi bëgg ñi maanaam lépp moom mii toog ci suuf la lépp lu nit di gis ci ñun ba am looy yëg walla nga naw ñi moom mii moo ko def ci ñun sama bàyyee ko jàngal mu jàngal ma ñu juddu gisuñu bàyyi moom lañu gis mu taxawuñu jàngal ñi gëm ñoo gëmloo ñi jàng nag xam ne réussite mënta am ci kaw suuf lu dul jàng moom mii moo ñu ko defal kon moom lépp moom la wëllër bi ku jël doomam tuddee ma ko na xam naa ne commerce moo nekk ci sa xel ma ne ko dëgg la mu ne ma xam nga lu ma lay xamal ma ne ko naam mu ma demal nga gëstu ji xam-xam demal nga gëstu ji xam-xam moom rek moo la mën a dimbali xam-xam nag buñ koy wax mooy xam-xamu baatin moo tax may wax ndax xam-xamu sariya moom moo ma yebal ndar ma dem jàngi jàng xam-xamu sariya ba goreel ko mu des lan xam-xamu baatin mu ne ma ndax sa wayjur wu góor ci xam-xam lañ ko xamee kon demal nga gëstu ji xam-xam ndax xamalul waalidul mubaarakun sa métier bàyyi boo ci duggee dafa barke métier d'accord ñun ñaar mooy paiement rek ma fay ko mu jàngal ma ma ne ko dinaa la defal ñaar dinaa la jàngaleel dinaa la bayal te dañuy wax ne xam-xam ñett mooy tax nga am ko ñaqa ñuqi ñukki ñukki képp ku am xam-xam te amul ci lii du jëriñoo xam-xam ñaqa ñuqi ñukki ñukki ma ne ko dinaa la fay li ma wax yëpp ma yëkkati ko ca saa si jox ko ko beneen bi ci topp ma ne ko dinaa la jàngaleel boobu mu ngi yor daara daara ji ma doon na lu ma téeméeri xeret su ma xëyee lu mu néew néew dinaa bind lu ma juróom fukki alawa beneen bi ci topp ma ne ko dinaa la bayal dinaa la bayal pour ngeen xam nit ku nekk fa mu jógee ngeen xam ma ne ko dinaa la bayal la gënoon jafe ci jamono jooju moom laa ko bayal mooy lan mooy tool ab bësi dégg ngeen saalom ñu ne bësi góor a koy bay yéen ñëpp da ngeen koy dégg waaw bësi góor moo koy bay doo mos a dégg jigéen li muy mën a mbay a bay nga dégg ñu ne toolu bësi bee jigéen a ko moom doo ko dégg mu wala am yamara ko moom yéen baykat yëpp xam ngeen ne doo leen ko dégg bësi góor a koy bay ma bayal ko bësi bayal ko gerte bayal ko li gën a jafe mooy bene ndax bene buñ koy bay day dem ba nawet bi waaj a taw bi waaj a jeex ngay bay bene heure boobu ku bañ dem tool keroog bi may yéewi daf ma wax ñetti kàddu kàddu yoo xamante nii ba léegi daf ma topp def na ma gërëm naa la ci kenn yegg siwu fi maanaam bëri nañu fi ñëw woon ndax gëstu baatin yombul kuy xaar ñi lay yéewi boo yàkkamtee doo dem da ngay dem yow da nga ñëw ci kër gi xamuloo kañ ngay dem xam nga ki ñëw voyage xam ne moom kat suur teel wala ak sal day dem dina mën a xam ni muy doxalee mais ku ñëw toog xamoo kañ ngay dem tey liggéey rek mu ne ma gërëm naa la fii am na ñu fi nekkoon mais mujjoon nañ dem lañ fa doon wut matul kon yow gërëm naa la li fi doon wut mat mu ne ma dama lay jox conseil boo xamante ni na nga ko bàyyi xel muy ñaar def ne ma bi ma njëkk a wax wallahi mu ne ma bul lekk ci hadiya maanaam bu lekk euh, weexal ba mu jeex tànk tànk gisagoo bee jaaw moo ma ko wax ne ma maanaam bu la jox weexal yépp nga lekk loolu mooy kon dal dimbale doomu aadama yi bu lekkati weexal yow kenn ba mu jeex te gisagoo bee jaaw loolu kuy def sëriñ du ko def day yóbbu ak li jaaba mu ne ma bu ñu la weexalatee junne même xaaj ko même bu dee 2000 francs yi nga maye ko wala nga saraxe ko wala nga dimbali ci doomu aadama loolu moo ma ko wax mu ne ma bu lekk weexal bu te bee jaaw ma déggoon bàyyi Niass di wax ne ku lekk yow kenn sonn yow kenn nee nañ ku lekk yow kenn ku nekk lu ñu la jox rek ne faraax bu coono ñëwee yow kenn rek moo tax mu ne ku lekk yow kenn sonn yow kenn beneen bi ci topp mu ne ma xam-xam bii ma la jàngal mu ma ma ne ko naam mu ne ma yàlla dina ko barkeel ci kaw boo ko gëmee xam-xam bii ma la jàngal fii ci boo ko gëmee def ko yàlla dina la barkeel dina barkeel sa xam-xam mooy loo ci def mu barkeel barkeel bi te li jiitu lii góor ji wax ma bi rek bi ma sëñ Kéba mi yebalee ba ma dem ci moom daf ne ma li ma njëkk wax mooy xam-xamu baatin fekk dama ko nettali sama histoire sama papa dundatul faatu na suma yaay laa dese dégg nga mu ne ma xam-xamu baatin boo ko yoree dina taxaw taxawaayu way way jur loolu la ma wax mu ne ma xam-xam bii mooy taxaw ëllëg taxawaayu way jur bi ma yàlla defee ma nekk ci moom ba mu yéewi ma ma ñëw fii am benn xale bu jigéen boo xamante ni yaayam dafa yor restaurant bu mag jinne sadda ko mu daanu jinne yaay ji indil ma ko mu ñëw ci saas si rek ma faj ko mu wér ndax nag man ñi ma jàngee la saraar ci fajum rab ñoo ci man ngayeen yi ñoo ci man ci fajum rab amul kenn kenn ku tolloog ñoom loolu moom amul ku koy weerante moo tax man lii ngeen di wax nii man faj rab laa gën a man tey bu la rab fu la mënoon a nekk su ma ne ko génnal ci yow day génn li tax loolu ma leen koy wax dama fajal maire bi rab bi ba pare te ki ma ko indil mooy Mor Siñaan sama mag moo ko ko indil moo ma ko indil ma fajal ko maire bi maire bi na ma dama la koy may jabar kon kay la ma doon wax naan ma baatin mooy taxaw taxawaayu way jur kon dëgg la ñun ñii kuy takk jabar sa way jur da ciy def dara nga gis ñi may la jabar gratuit ne ma xale bi nii boo ko bëggee ma may la ko xale bi xale bu jigéen bi dugg na ci laay benn bés fi mu toll nii ku nekk Italie moo ko takk mu ngi Gàmbi ndey faatu la mu ne ma boo ko bëggee léegi léegi léegi ma may la te xam ngeen ne way jur moom bu joxee ndigal jeex na ma ne ko baax na kon lam ma doon wax ne ma lii boo ko toppee ëllëg mën naa taxaw taxawaayu way jur man gis naa ko fii yàggul dara xam naa ne boo ko waxee moom soxni dafa am benn jigéen boo xam ne daf ne maa ngi fay yebal sama doom moom bitim réew la nekk mu ne ma maa ngi fay yebal sama doom sëñ baara boo ko xoolee mu doy la may naa la ko boo ko xoolee mu doy na may naa la ko loolu moom xam naa ne du neex ajaay ma ne leen xam naa su ngeen ko xàmmee woon ba muy ñëw ci kër gi bu fi ñëwee ñëwatee kenn du ko ubbil mu am génn góor goo xamante ni góor gi saar lañ koy wax mu ngi dëkk Wakaam góor gu mag parce bi muy faatu am na cent ans dañu ànd man ak soxna si maa ngi ma ñu dem na ji ko mu ne soxna si. mu mu ne ko soxna si kaay ma wax la loo xamante ni xam naa ne du la neex waaye aka mu maa neex ñun ñaari ñoo ànd ñu toog paasaar ne ko kaay ma wax la loo xam ne aka mu maa neex waaye xam naa du la neex mu ne ko lan la mu ne ko man de su ma amoon doom bu jigéen léegi sëñ Baara bëgg ko léegi ma may ko ko léegi loolu neex na ma waaye yow du la neex waaw yow loolu dana la neex waaye du la neex ci lan moo ma boole ak moom mooy xam-xam rek moo ñu boole. ak bëgg lu baax moo ñu boole mu nekk moo xamante ni moom ma kuuf kon loolu di leen xamal rek nit ki fi mu jaar ba yëg si fi mu nekk sëriñ ceebaa mi moo tax waaye konoon bii heure maa ngi ca commerce ba mën naa ma daanu mën naa xool nu ma def waaye konoon bii heure maa ngi ca commerce ba kon loolu yëpp Serigne ceebaa mi moo ko def yebal ma ci buur gi Saïd gay ba léegi mu ngi dund dugg na ci yebal na doomu mu dugg ci laaj bi di témoin xëy na bu ñu toppee histoire bi dafay gudd trop waaye nag euh, di leen xamal ne. ñu ngi leen di sant bu baax jataay bi nag dama ci kontaan trop balaa ma ñëw ci groupe bi di gërëm mbokk yi nga xamante ni ñoo fi teew euh, di gërëm sama mbokk yi nga xam ne waa kër suñu maam Serigne Touba lañ ndeysaan xam-xam moo ñu boole ak ñoom suur Lo mu ngi nii doomi sëñ daam euh, sëtu sëñ daam Abdourahmane Lo la mu ngi nii toog euh, xam-xam moo ñu boole ñëw na suma kër. waxtaan nañ yu baree bëri mu nekk jàngalekatu alxuraan nekk borom xam-xam ak ñii ñëpp mu àndal Mansour kontaan nañ trop ci teew bi nga ci teew di xam ne sa maam jooju ku ko xam-xam ko xam nga buñ ne sëñ daam Abdourahman Lo ku ko tudd rek sa xel du daj lenn lenn lu dul alxuraan kon kontaan nañ si sa jataay fii boo fi ñëwee wax dëgg yàlla ñëw nga foo xamante ni ah sa kër la te wax naa leen na la ci bi nga defee jataayu alquran jataay tuddee ma ko wala bokk ci ñi ngi de tuddee xam naa lu ma naqari ba ma mënul ñëw waaw loolu ma xamal ne même bi ma la gisee nii sax dama ci xaw a am kers wallahi bëggoon naa teew ca jataay ba waaw waaye nag li ñuy wax rek man malakan kullan yarji'u ila naas waaw ñu ngi lay sant bu baax di sant mbokk yi nga xam hmm? <laughs> jërëjëf merci beaucoup jërëjëf Mm-hmm. man yëg naa ci sa ci sa absence. Mm-hmm. ni boo teewoon mooy dàq. jërëjëf ah. jërëjëf sa yéene daal. macha allah mm-hmm. jërëjëf. Hmm? ah ñu xaar réer yi. waaw ñu ne ngi non réer moom forcément dañ koy xaar kenn kuy wàcc fii di génn te xaaroo réer. kanaa nga bat gaa yi xam naa ne jigéen ñi taxaw fi ak seeni coquette moom. ku leen romb dina métti trop ndax li tax may wax lu ci loolu euh, dafa am jataay yoo xamante ni lu mu gudd gudd lu gàtt la tey am na ci ñoo xamante ni Angleterre lañ jógee am na ci ñoo xam ne France lañ jógee am na ci ñoo xamante ni tey jóge nañ ci dëkk yu sëri moo tax dama ne bés bi ñun lu mu gudd guddi day gàtt ci ñun euh, bu ko defee. ñi ngi sant mbooloo yu fi teew waaye nag di sant ñi nga xamante ni ñooy sumay xarit ndax nit bu ñuy wax tim ay xaritam dañuy wax ni wax ma sa xarit ma wax la sa jóg waaw wax ma sa xarit ma wax la sa jub kullu qarinin bi muqarini yu yaqtadi nit ki daal boo ko bëgg xam nga gëstu ko gëstu ko xamoo ko nga bëgg ko xam xamoo ko jaaral xoolal xaritam na mu comporté rek noonu lay mel kon maa ngi gërëm sumay xarit waaye itam di gërëm ki nga xamante ni moo doon def conférence bi muy ustaas bi tey wax na dëgg 2002 la ma fekk maara foofu lañ xamante man ak moom 2002 la ma fekk maara année bi nga xamante ni ci la bateau la Joola doon suux boobu la ma fekk maara wax dëgg yàlla ñi waxtaan ba yàlla def ñi riirante riirante ba dajewaat kon ñu ngi koy sant bu baax di sant ki nga xamante ni tiw mooy Malahim Wilane moom moom mbokk la ci deret nekk xarit ñu ngi koy sant bu baax euh, di sant sëñ Mamour ñas moom it ñu ngi koy sant bu baax mbokk la di xarit euh, sëñ Jaw mi fi jógee nag wax dëgg yàlla bëggoon naa sama kàddu gi fekk ma fi waaye yàlla def na fekk ko fii ndax dafa bokk ci sama homme de confiance yi xamu leen li tax am na ñaar yoo xamante ni ku ko def loo nit si sa doom sa homme de confiance la saa buy sa doom di dugg néegu góor nga jox ko nit mu yóbbu ko muy jàngi alxuraan nga yóbbu ko te mooy ñaar yi gën a marke ci parent dugg néegu góor ak yóbbu ko mu jàngi moo ko defal Mouhamed mii ndax man mënu ko woon a yóbbu mu dem dugg néegu góor moom moo ko jël yóbbu ko ko woon yóbbu mu jàngi ndax nim mu tuutee woon moom moo ko yóbbu kon lii waroon na ko fii fekk waaye nag ah, sëñ Cissé bu yeggee dana ma ko jottalil kàddu googu amoon naa kàddu ngir mànd yu yu xóot ci sama xol yoo xamante ni. fase woon naa ko ko yeggee ndax nag cereek ba muy yóbbu xale bi lii lañ ci bëggoon yàlla def ko ci moom kon ñu ngi koy jottali néew boobu sëñ Saliou Cissé moom it nekk suñu xarit boo demee nga yeggaleel ñi ko li nga xamante ni mooy suñu néew boobu euh, sëriñ Saliou euh, nga yóbbul ñu loolu boo demee nga yeggee ñu ko ki nga xamante ni mooy euh, sëñ Diaw et di ki nga xamante ni mooy Moussa Ba nga xamante ni ñoom moo nekk au conseil nekk directeur cabinet bi nga xamante ni muy Aminata Mbengue Ndiaye mu ngi nii toog ci kaw moom lañ doon jox kàddu mu ne euh, moom jéggale ne mu nekk nit koo xamante ni moom dafa spécial ci man ndax li tax depuis barki démb la yebal otoom ak chauffeur am duyal ko essence na ko fu sëñ baara fu mu bëgg a dem na ko fa na na na ko yóbbu fii la chauffeur bi nekk ba guddi mu door di dem xam nga nit ku la a loolu nit ku baax la mu nekk sama kóllëre boo xamante ni yàlla moo ñu boole yàgg na depuis boobu mu ngi euh, depuis boobu mu ngi France waaw depuis boobu mu ngi France wax dëgg yàlla moom ñu ngi koy sant ci loolu euh, taxawaayam gis nañ ko ci ñun ci moom wax dëgg yàlla moo tax lu mu am rek dama ciy taxaw kon Mouseba ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla yokk say ndomba tànk ndax ba ñuy xamante à distance lool loolu la ñuy tuddee tarbiyatu min wara judri ba ma koy xam muy nekk Paris ba yàlla def mu ñëwaat fii ñu nekk ñun ñaan nekk ay kóllëre di dem lante di dikkalante amul sama événement buy am te du ñëw amul lu muy am te du ma wax ne ma sëñ Baara sànni ma ci ñaan kon muse Ba ñu lay gërëm bu baax au conseil bu mu ngeen nekk yàlla la yàlla defal barke foofu defal la xéewal ñu ngi nuyu oustaz Dramé ak euh, oustaz Dramé moom moo doon wax léegi nekk ki nga xamante ni moom suñu wëllëre la li ñuy wax rek euh, daanaka ñu mbi lu ma nekk rek ñoom dañ cay nekk di nuyu itam muxaddam bu mag toog nii dend ak moom man muy Mansour Ndiaye mu ngi jéggulu sanq ci tardé ma ne ko yéen moom seen tardé sax amul solo yéen moom na seen ñaan di tegu rek kon sëñ Mansour ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax te di leen ndokkeel di nuyu oustaz la mi nga xamante ni moom moo doon jàngal Mouhamed euh, damay wax ne moom depuis ni mu ko waxee bi ñuy xamante depuis Kaolack la woon ca daara ja bi ñuy nekk ca daara ja di jàng keebaa mii di ñu jàngal boobu la ñu xamante wax dëgg yàlla yàlla def ñu dajewaat ndar jàng xam-xam bi ñu ñëwee fii moom it mu continuer di jàngale ma yóbbul ko Mouhamed mii te awma dara lu ma ciy réccu fan yii dama koy téyel chaque suba ma téyel ko juróom bu ngoonee bu ma amee jot téyel ko juróom alxuraan ji leer nañ buy tëri damay bëgg a ba sama xol bee senax nexi xam ngeen senax nex wala déet waaw waaw xol bi day senax nexi buy tëri alxuraan ma kontaan ci Balla xam ne kii daal xamul lu ma ko mën a fayee mënuma ko fayee dara lu dul xëy di la xool di la ñaanal yàlla rek waaw di ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel say mbir yépp dëgg yàlla oustaz Balla ñu ngi lay nayu bu baax eh, sëñ Fall ñu ngi lay nuyu eh, Idriss ñu ngi jégalu xam nga nit ku war a liggéey amu leen temps nekk ci liggéey toog fii ba heure bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci li nga xamante ni mooy sa taxawaay di nuyu nag kee toog ne kee moom mooy suma nijaay waaw waaw kee mooy suma nijaay moom suma yaay ñoo bokk ndee ak baay moom suma yaay ñoo bokk ndee ak baay ñoom ñooy suma caatu maam nekk suma nijaay di nuyu di Masamba mi ngeen di dégg may tudd ci laay bi mooy téyeer bi mooy ñaw ñaw yu baax yi xaw ma moo koy dagate ngeen di wax xaw ma maas ñu ngi koy ñu ngi koy bu baax euh, Modou maa ngi lay ziar Modou Farafeñe ñi gën koo xam ci waaw waaw sëñ daam ñeen ñi ci ginnaaw yëpp ngeen baal ma rek gis-gis bi moo dul leer mbokk yëpp Baye Diouf yéen ñëpp sëñ sàll yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñëw nag ci daj dëpp gi waaw daj dëpp gi yéen groupe bi laa tuddee daj dëpp xam nga daj dëpp mooy loo xam ne da ko doon làmb daj ko rek wàññeeku waaw daj dëpp waaw yéen yéenay daj dëpp gi waaw yéen yéenay daj dëpp gi waaw yéenay daj dëpp waaw mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la merci beaucoup jërë ngeen jëf waaw dëgg la dëgg la ndeysaan ndeysaan ba ñu dajee teeg yow ci lañu daj ba ñu la dajee rek la ñu rëkk macha allah macha allah lii moom man mënuma woon a ñàkk a wax tey xamoon naa ne man sama kàddu dina jóg ci moo ko tey sax may wax dëgg la waaye yal mm, na yàlla guddal yal na yàlla wéral sa kër yal na yàlla barkeel xam-xam bi mm. ànd bi ñuy ànd ni yal na yàlla def ak suñuy sët di ko ànd ñuy wax naan dañuy la woon dëgg la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amiin amiin akay sa ñaan jërëjëf wax na waaw kay jërëjëf amal milliard bu la neexee nga maye ko ci trois al amal milliard nga ne yow may naa la cinq cent mille yow trois cent mille eh yow deux cent mille yow cent mille jeex na mooy li alxuraan di wax ne maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaxin sëriñ Makhtar Diagne da daan wax ne daf ne ku ma jàngal ren téere bu déwénee bu ma koy jàngal keneen yow nga nekk sama noonu ndax da ngay wax ne Serigne bi daf ma doon nëbbu téere xam jàng nooy gën a jàngalee di gën a di gën a am dégg-dégg yu bees moo tax li ngeen di dégg nii lii lu ndaw la moo tax dangay gis nit koo xamante ni am na si ñoo xam ne yëpp nag waaw di nuyu abi moom def ne man mooy sama taaw xam nga nag man dama bari ay taaw sukki naa ngi fi eh, dégg <laughs> bëri nañ trop macha allah waaw gis nga ko léegi léeg nit na ma man de yaay sama papa ma ne ko am nga papa ju baax am nga papa ju baax a baax a baax a baax waaw am nga papa ju baax waaw ju baax a baax a baax a baax am waaw yow moom foo temee ñiy tiituroo sa papa waxal ba naan ndax kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm ñoom kooña sànq sëñ bi wax na ko moom it ñoom ñoom kooña ñu ngi leen di gërëm bu baax seen dëkkandoor ñoom Ousseynou ak Assane wax dëgg yàlla ñoom ñoo dëkk fii ñu ngi leen di gërëm ibba ñoom it ñoo dëkk foofu képp koo xamante ni suñ dëkkandoo la rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di wax ne lu si jub rek ci yàlla la ah léegi bu ko defee ñuy gërëm nag euh, sama sit bii mooy muntaxaa si muntaxaa ba muntaxaa ba boppul la jéeri kii man ak moom bu doon ne ci mbër la ma ne ca mbappat la xam ngeen mbappat dem fukki bëri fukki jël la ñu daan la juróom wala ñaar wala ñett kii man ak ci mbappat la woon géero géer ñaa ngi nii daal muhammadu abdallah baay ba mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay na bee